seen teewaay rafet na ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax seen jéego yi nga xamante ne moom ngeen dox si seen kër ya fii yàlla mu nekk jéego yoo xamante ne da leen di yóbbu àjjana seen ñëw bi ngeen ñëw daal di fekkee li nga xam mooy conférence bi nekk na lu ñu kontaan lool ndax wuyu ngeen ñu te dal ngeen suñu jotaay bi ndax woote yomb na waaye wuyu si lu jafé la andi ngeen ak ñun ci li nga xamantene moy conférence bi ba mu egsi si place bi ci waxtu bi ñoo ngi leen di gërëm di leen di sante bu baaxa baaxa ba ngi leen di tatagal ci jotaay bi suñu invité yi ak parents d'élèves yi ak ñi nga xamantene nyong ñoo tew ñëpp ñoo leen di dalal di leen di tatagal si jotaay bi ñoo ngi leen di gërëm di leen di sante ci sacrifice bi nga xamante moom ngeen def bàyyi seen soxla dagg seen yitte ngir ñëw toog depuis suba ba léegi métti na lool ñoo leen koy masaw fa baraka fa barakallahu lakum wa jazakumullahu xayran premier jour bi mu tàmbalee Bakara am 40 hizib si benn bés benn aaya alquran la tëb si 40 hizib sa mu eggali ko amul fët kon kaamil bi mun nañu wax ne benn aaya la si tëb takbir loolu may yàlla la mosul dañ di tari chaque jour ñaar fukki xisib ba semaine bii weesu ma ne ko jot bi bëriwul ndax liggéey bi ma fi xaar fukki xisib laa lay déglu kaamil bii di ñëw ma tàmbalee ko altene ñu pare ak moom démbu samedi mu jeexal benn kaamil fukki hizib fukki hizib giiru dundam fi ak école bu ubbi fukk boobu lay continuer ñaan yàlla subhana taala yàlla na ko yàlla saxal si dënnam weeru koor bi bokkoon na ñu doon jiite jàkka yi nekk gox ba ak si biir daara ji naafilaay nañ kaamil bi ba mu jeex si fukki fan yu mujj yi ñu tàmbaliwaat ko si imaam yi la bokkoon tagguñu ko dañuy wax ay jaar-jaaram nda yàllaa ko yëkkati yàlla mooy yëkkati si jaamam yi ku ko neex kii nag yàllaa ko yëkkatil bopp balaa ngay xam ne ku ku nekk si mbaar mii di mébét am dom ju melni ñu dem al-akhir fa yalla di iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha jangal nga yek alquran quran biñ doon jang ci aduna moy nek sa ascenseur bi la wara yobu sa kër jangal nga dem xale bi jang di yek jang di yek be daraja escalier ya aljanna dafa toll ni baatu alquran kon kale bi mokkal alquran ñoom ñooy nekk si étage ya gën kawe waajur yi nag hadis rot na ne yonente yi salaam salaam nee na yàlla mi dakka teral ku nekk ne dama leen di solal solal taaju taajul karaama képp ku sa doom mokkal alquran ba xam ndey lay solal te yàlla nag ku mu teral ku nekk nga ràññeeku ay nit nag ñu ngi wax ne ba ñuy firi aaya bale ñi nga xam ne gëm nañ wa tabaatum zurriyatum bi imaanin alxaq naa bihim zurriyatahum xale bi bu demee ba tool be biir état zamba baayam manjoon bar ñëw munul yëgsi baayam yaayam góorgóorlu ba dugg aljanna waaye mënul tari lim daan tari mu ne sama tari ba tegal leen ko sama papa ak sama yaay ñu fekk si ma fii sama biir kër ñu nekk ala sururin mutakabilin ya leen ko yàlla defal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 اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا حضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة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 ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن يسمعن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يواجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدوركم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لصلتهم عليكم فلقاتلوكم ۖ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا تتخذوهم فخذوهم وجدتموهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليكم سلطانا مبينا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليكم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا قتأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ۖ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نخس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو من في ملتنا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين لنجي وحرك باريوت mooy dañuy santaat yàlla suñu boroom mi nga xamante ni moo nu xéewale teraanga ji teraanga ji nga xamante ni tey teraanga mënu ko gën a rëy ci kaw suuf muy ñu am suñu benn doom bu yàlla may mu mokkal xuraan mokkal xuraan co mokkalin bu rafet boo xamante ni liy seere bi mooy boroom xam-xam yi fi nekk ñépp déglu nañu ko te jappanaani rafet lañu mokal gi mu xamanteni mokal naka alquran ko alxuraan ndax Seydina Alioune dafa waxon ni man may jaamu ki nga xamne xamal na ma ben araf suka nexé mu jaayma suka nexé mu gorel ma ane abdu man allamani harfan wahidan faman shaa baa wa man shaa ataqa kon liñ ci dégg moy yow nit mënu la fay dañ lay bayé ak yàlla ah Mouhamed mii nga xamante ni tey moom la suñu borom def mokkal Qur'an man li may lancé li may jëkk a mooy koñ bii nga xam ne moom lañ dëkk di yara muy koñu marché bii ñi nga xam ne ñun dañ fi nekk nekk fi ak suñu ay njaboot ñu jaxasoog ñi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk man toujours damay wax ne nañu dimbali xale yi ñu jàngi nañu dimbali xale yi ñu jàngi ndax xale bi su tolloo si nga war ko jàngal te jàngaloo ko même su nekké mag dana ko soxlo ta su boba dotu ko mën am far am shaqiran ala takunu mudaqiran la yadna shi'at ar rusdan khalel man nga ko yar do ko final way fo tol dang ko war di laa bira njub leneen mënul defar nit lu dul alquran fañi nit ñi tek seen bët yaaka na fofu la du fofu li sibxatallaahi wa man ahsanu minallaahi sibxa alxuraan day moo mën a jubale nit leneen mënul jubal nit te alxuraan itam mooy taraanga leneen du taraanga alxinaaw xinaawul xuraan laa xinaa alxuraan alxuraan dag mooy taraanga leneen lu lu nit am te amul alxuraan amul taraanga bon xale yi yàlla yàlla def leen mag li ñu jàng yàlla na ko yàlla barkeel kontaan nañ ci lool di ci bég lool Mouhamad mii doon taali léegi nag suñu doom la ay juróom xamuñu lu mooy alxuraan papam ci taari kaamil la dëkk guddeeg ba ci it mii jur papam alxuraan rek la xam kon bu yàlla dogalee ñu dugal ko ci daara ji mu taari alxuraan loolu beneen mbégte la te man sanna na kon san na xasana fa loo ajra man xamile biya ila yawmal xiyaama seen bàyyi njoogu seen maam njoogu ma doon jàng alxuraan yar leen ci ñoom ñu ñëwaat yar ci seen doom yi loolu ak sant yàlla la yal na ko yàlla doole saxal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz kenn la ci ñun ndax wax dëgg yàlla mu ngi fi bëgg a yàgg def fi nag liggéey bu am solo gannaaw bu mu jógee ci daara ji jëfandikoo li yonent bi waxoon ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ñi gën ci xeet bi mooy ñi jàng di jàngale yàlla na ko yàlla nangul liggéey boobu te alhamdulillah bu ñu xoolee xale yi soo ba léegi njàng mu wér miñ fi déglu qiraatan mujawwada boo xam ne qiraatan wa tajwidan njàng mu rafet la di wone compétence oustaz bi ndax xalé bi mom transistor la rek la radio bu mag bay wax moom la radio yi ndaw yi di soti kon li ci deñu xalé yi ci deñam la joggé euh, soti ko ci euh, doomu julit yi xam tay ñoy suñu pépinière pépinière nak xam ngeen ne moy njëmbat mu ndaw mi nga xam bu fi mag yi joggé rek ñoy remplacer mag ñi su ko défé ci teunk rek bugguñu guddal suñu mbokk Cheikh Moustapha sar khirij jamiat Médine Médinatul munawwara jamiat islami fofu la génne muy ca Médina fi la jànge bé am bagam génn fi dem Arabie Saoudite def ci walu sharia kuliyatu sharia xam ngeen ne fofu tabarakallah bu ñuy wax man baul ilmi fa alquran don wàcc mooy diggante makk ak Medina dem na fa taataan fa lam fa jot taataan segg ko indi ko ci dëkk bi di ngeen koy dégg ci ay émission yu bari yu fasanti ko ci ay conférence ci biir réew mi rawatina rajo Dunia ak yeneen rajo yoo xam ne ñu ngi koy faral di invité di ko wax ne fadilatu cheikh ñu ngi lay dalal jàmm ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli si yonente bi alayhi salaatu wassalaam di am mbégte bu mag bokk ak yenn jotaayu xam-xam jotaayu alquran ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi ñu fekk ci bas bi ak ñi fi jaar ak ñi nara a ñëw ku nekk ci ñoom ñu ngi koy wàcce wàccuwaayam di ci jiital suñu mbokk ustaas Mohamed Lamine Lum waffaqahu ak képp koo xam ne mu ngi jàppalanteeg moom ci wàll jàng ak jàngale moo xam ay jàngalekat wala sa ay soxnaam ñu koy jàppale ci waar bi ñoom ñëpp yal na leen yàlla fay barkel seen dund bañ a tas seen yaakaar di nuyu ustaas yeeg ilimaan yeeg ak mboolem kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen ci baas bi di beral nuyoo nag ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo sukkoon guddi ak bëccëg di jang téré yalla bi di jàng it xam-xam yi ci aju ñu ngi leen di nuyul bu baaxa ba di leen ndokkeel waxtaan bi ñuy féetewoo moom mooy ngeneelu jàng alquran ak jàngale ko ma tenku ko si ñatti tombo بنجك بي أمنا كلمة موجزة عن القرآن الكريم بنا كادو بنيو تنك باجو سوال القرآن الكريم نار البيد موي حقوق القرآن الكريم علينا أقي القرآن ييغا خامني جولت بو نيك امل نكو القرآن fadlul quraanil karim taalluman wa taaliman ngëneelu al quraanul karim ci jàng ko ak ngëneel bi nekk ci jàngale ko yi ñooy tomb yi nga xam ne dina ci jaar jaar bu gaaw ngir ne toogaay bi metti na waaye ku nekk demaale ko tomb bu njëkk bi wax dëgg yàlla lu jiitu ma koy bind am naa problème bu mag a mag a mag bi may jàng lu borom xam yi bind ci tomb bi di alquran am ci ay laaj yu bari am ci it rëccu bu mag a mag a mag ci sama dund mbokk yi nañu jàng alquran nañu jàpp ci alxuraan démb de bu nekkoon tey téere yàlla bi dinañ ko jox waxtu bu bare bare bare ànd ak ñu ngi ciy góorgóorlu waaye depuis bi ma tiimee téere yi di jàngat tomb bi gis naa ne ñun dañoo sori alxuraan bu bare bare maa ngi ndokkeel képp kuy jàng alquran di ko ndokkeel si turu di ko wàccee wàccuwaayam ñee ko it ngir ay waxtoom yi mu jagleel téere yàlla bi di ndokkeel wayjur bi jël doomam dugal ko ngir ñu jàngal ko téere yàlla bi maa leen di ndokkeel bu mag a mag a mag ci yëg-yëg bi ma yëg bi may bind te maanaam bi mu nekk wax dëgg yàlla yëg-yëg bu mag a mag a mag boo xam ne yàlla dogal na ñu dem ci barab yi bare bare si fi ñuy jàngale alquran gis effort yi doomu aadama yi di def ngir jàng téere yàlla bi walla jàngale ko dund na dëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam juróom benn at yoo xam ne bés bu nekk di nga gis ñu toog di jàng alxuraan di ko jàngale démb ci mbaaxam bu ñuy waxtaan ba ci démb mu ne ma li dama leen wax ni leen comme lu bees la lu njëkk la ah wax dëgg yàlla loolu waxul sax ma wax ko am naa mu ne bu leen demee bu leen def lu diis commencé leen ko parce que luy wéytu wàllu islam la man nga commencé benn mais boo demee ba tey ñu ay milliards de musulmans Mouhamed amul woon loolu kon dañuy sant rek imam maa ngi lay bu baax a baax wax dëgg yàlla yow moom nga dalal sawar na nga dalal et kàddu yi ma yëg rek bu kàddu Matar Diaw parce que jàngatukaay bi sama sër la doomu sëtu Ndaraw Sarr la Ndaraw Sarr ak Mati Soare ñu jur yaayam maam Faama ah maam ah, ma yónni dama ñëw pour kàddu ko na ñëw mais nag nee daal lii yàlla na yàlla sax ah wax dëgg yàlla jàppale lu ñu déglu ñu ñun nag leneen lu ñuy wax li ma waxoon démb rek laay wax oustaz Birame démb ñoo yendoo mu may ma honneur ñun ñëpp sama kër la ñu añee démb ah mu ne ma Matar man yaakaar naa xam nga man fi dégg man ndongo daara laa dañu ma yàlla yemul daara mbakalu diis wala foogante ko amul fi jaru fi jaru fi kenn loolu fi waxul fi Daouda Thiam waxul woon li fi ànd ko Baye Alaaji Fall waxul woon li fi Daouda Fall waxul woon li fi Boucar ñoom ak ñeneen ñi waxul woon kenn dootu ko wax ci soobee yàlla kon bu ñaanee loolu dañu war a yaru te yar kenn ko def yàlla mi jëkk ci xaloon xale yi incha allah ñun ñi ñëpp daañu nekk entre confiance ñaan na ko yàlla def. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp. di ndokkeel sëriñ daara yi di ndokkeel alquran ak waa alquran ndax lii ñun mën nañu wax ni ci cérémonie bu mel nii c'est une lu tax mooy ñi fi mokkal alquran ci dëkk bi bari nañu ci li ma foog wante nit ki tari alquran ñu indi ko ci penc bi wane ni présenté ko ne kii mën na alquran mokkal na alquran ñu defal ko cérémonie bi lii ci zone bi mën naa jàpp ne lu njëkk la yàlla na yàlla def ñi ko yoroon di ko toqi ba ñu jàpp ne mën na yàlla na yàlla def bi kulli xarfin min alquran sunu boroom def ko mu nekk yiw sotti ko ci seen mawasin yi yàlla na ko yàlla def moom xale bi tamit yal na alquran gunge ko barke alquran gunge ko gunge ay way juram gunge dëkk bi gunge ñëpp tabaarakallahu su ko defee ñoom motaar li ñu def loolu lañ war a def ndax dëkk soo ci dëkkee nit ñi am confiance ci yow wóolu la moom dama koy tooñ chaque jour fu ma ko gis ma ni ko man yaay sama mère te loolu du ay waxu waxu yeneen yeneen dafa nekk dëgg moo tax ñu koy wax ndax dafa dafa jege dafa jege population bi dafa jege population bi ni muy wane xale bi di wane ni man dama bokk ak moom di lim ni ñu bokkee ci deret loolu ku bëggul lu baax doo ko def loolu ku bëggul lu baax doo ko def alhamdulillah su ko defee ustaas yi ko doon jàngal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara su ko defee wax ji mën na bañ a gudd waaye ñu ñaanal suñu mbokk yi ñu fekk ci taabal bi ñoom Moustapha ñoom Loum ñoom Oustaz ak yeneen asaatiid yi nga xam ne leen ñoom ñëpp ñu nuyu leen ziar dama ne woon du ma jël benn kàddu Oustaz wax na dëgg parce maa ngi war a dem ba ginnaaw mais dama ni comme bi ñu ko waxee journée bi dafa chargé. ma ni su may dafa yitte yi naa commencé ci kaw jëm nali loolu moo tax ndax jàppoon naa ni 15 heures dinaa fi egg si toog fi ba yi 5 heures ñu doog dem mais nag noonu la mbir yi di demee ñu sant yàlla bu baax di wane suñu mbégte ci daar di wane suñu mbégte ci doomi dëkk bi mais di wane suñu mbégte ci suñu doom bi nga xam ne yàlla may na ko alquran keroog bi ma joon ñëwee ne ma dañu ma wax ni ma sama doom bi mokkal na ma ne ko lu lu normal la ma ne ko lu normal la nga am doom bu mën alquran ma ne ko lu normal la ma ne ko leneen lañ doon wax ñu mën ci di am xel ñaar mais ma njoon laay doomam mokkal na alquran ma ne ko loolu lu normal la loolu lu normal la kon nag alhamdulillah oustaz yi ngeen ko joxoon tamit parce que adduna bi dafa toll fu nga xamante ni bii ñii xeex islam di xeex daara ci côté bu nekk la ñuy jàng nañu alquran ba tari ko ñu ardu leen ci kanamu nit ñi loolu bu ko defee lislaam benn tontu mais nag alhamdulilah ñi ñi kii yi ñooy yàq yi kii waaw mais nag sant yàlla alhamdulilah benn benn yi rek am na solo ñi ngi bég bu baax oustaz di leen gërëm oustaz Gueye jërëjëf ñi ngi baalu àq bu baax ci guddeel bi su ko defee ngeen baal ma rek bu baax suñu bàyyee muhadara bi mu commencé continuer tuuti. ñu mën ci jëriñu tuuti Oustaz Moustapha ñu ngi bu baax a baax moom ku ku amul morom la tabaarakallah xam nañu ko bu baax a baax yàlla yàlla fay ko yiw Oustaz kon ñu bàyyi leen doxal bu baax. mbokk yi ñu ngi santaat yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wàccee kilifa yi fi dëkk suñu ginnaaw seen wàccuwaay kaddu yi njëkkati yëpp. yàlla si yàlla def barke ñaan yi ñaanal sëriñ daara bi doon jàngal ndongo bi ak xale bi wattu alxuraan yal na yàlla nangu ñaan yooyu loolu yàlla mën na ko yàlla def ñu ngi nekkoon si tomb bu am solo muy droit yi nga xam ne jullit bu nekk ameen na ko alxuraan ñu waxoon yooyu bokk na si mooy gëm alquranul karim bépp jullit boo xam ne mu ngi dund si keppaaru lislaam obligation la si yow nga gëm lii di alquran loolu mooy àq bu njëkk bi alquranul karim si jullit bi mooy al imaanu bihi mooy gëm ko loolu it ay firnde yu bari ñoo ñëw si alquran di wane ne jullit bu nekk daa war a gëm alquran yàlla tàmbalee loolu si yonante bi alayhi salaatu wassalaam yàlla wax ne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi والمؤمنون نانا يونت بي عليه الصلاة والسلام قمنا مبولم لي الله واتشي سموم نانا نيقم يالا تنك أي مؤمنون نيومت قمنا نعر قرآن بي الله واتشي سي يونت بي عليه الصلاة والسلام كن لولو دفاي جمسي بوكو جنياتل يونت li alquran di jàngale ci wàlla pas-pas wàlla ngëm loolu jullit bi da ko war a fas beneen bi li alquran di jàngale ci wàlla ay atte atte yooyu jullit da ko war a gëm li alquran di jàngale ci wàlla miiraas lu jëm ci wàlla yar ak lu jëm ci wàlla dundin ci àdduna wala àllaaxira yooyu yëpp jullit bi da koy gëm amul lenn lu mu war a weddi ci li alquran wàcce di ko jàngale ba léegi bokk na si àq yooyu mooy xaqu tilaawa alquran am na àq nga koy jàng jàng bi nag day tàmbale nga dem jàng làmmiñ bi ñu wàccee alquran ba mun a liir mën a nag di jàng alquran ngir ne yàlla subhaanahu wa taala moom moo wax warattilil qur'ana tartiila loolu ndigal la te pour nga jàng alquran faw nga jàng ko mënoo ko jàngal sa bopp faw nga dem si ki ko jàng man ko mu jàngal la gannaaw bi nga xamee nag yoon yi koy jànge nga continuer di ko jàng yàlla subhanahu wa taala digal ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu jàng alquran ndigal boobu dala ëmbaale yow jullit bi بيب ديغال بي الله جوخ يونت بي عليه الصلاه والسلام سير قران لولو دا لا امبالي و جوليت بي با بنين ديغال نيو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم موم دونغ موم مو جاغو ديغال بوب كوم ني نين خامي ديغال يي نيو سير قران اك سنه nga xam ne dafay généraliser alaamu yutraku ala umumihi xatta yarida dalilu taxsiis ñuy jàngale lu jëm si wàllu usulul fiq wala alqawaid alfiqiya nee nañ ndigal bu bàyyi ko si yàlla wala si yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu nekk ndigal boo xam ne dañ ko ndar kepp dañ koy bàyyi noonu mu généraliser ba beneen ndigal ñëw ne lii yonent bi salaa moom dong moom moo ko jagoo yàlla subaanu wa wax na si suratu naml ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko jox ndigal mu ne digal nañ ma ma jaamu borom néeg bi muy yàlla subhaanahu wa kon foofu yàlla dafay leeral ne neg bi kenndu ko jaamu waye boromam na jeyi jaamu comme ni mi wa fali abudu rabba hada l bayt jaamu len borom neg bi muy kaaba bi waye nekkul ne kaaba bi la ñuy jaamu mu ne neg boobu nga xam ne yàlla da ko wormal yàlla subhanahu wa taala moo digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune wa an wal quran yalla daf ma digal may jang al quran loli non la la ko digalee yow julit bi moy ngay jang al quran lol motax julit bu nek war am jukki bo xamne da koy jang ci al quran lol nak day dellu si capacité am li mu mën a jàng ci alxuraan waaye mënul toog journée lumb te jàngul lenn ci alxuraan te amul benn ngant kon jàng alxuraan loolu dafa war mag war ndaw war góor ak jigéen ñépp ñoo war a maase di jàng alxuraan lu dul nag koo xam ne am na ngant tu ngant boobu it day fekk sariya moom moo la tere nga jàng alxuraan ngant boobu bu tegee kuwe boobaa it da ngay jàng alxuraan bokk na si àq yi nga ameel alxuraan mooy àq mokkal lenn ci alxuraan ngir ne moqal léppi alquran lu baax la soo ko mu ne mooy li gën waaye li ñu tuddee alqadrul mujzi mooy au minimum war nga am li nga mokkal si alquran li jullit bi munta ñàkk mokkal faw nga mokkal fatiha te fatiha soo ko mokkalee danga koy jàng sooy julli su fekke mënoo leneen ludul fatiha même budul julli bi it arqo war nga ko di nafar di ko jàng kon mokal alquran mokal téere bi yépp loolu it jullit bu ko mun loolu am na solo lool ci dundam njëriñ bu bari bari la buy dellu ci moom moom ko mokal ba léegi bokk na si àq yooyu mooy xàqu tadabbur mooy àq setantal laaya al quraan yi aaya bu nekk nga taxaw xam lan la yàlla di wax lan la yàlla di wax ak yow loolu it dafa bokk si maqaasidu inzaalil quraanil karim jubluwaay yu rëy yi tax yàlla subhanahu wa taala wàccee alquran ngir ñuy settantal aaya yi loolu it yàlla subhanahu wa taala nee na kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab nee na alquran téere la boo xam ne bu ñu wàccee la mu nekk téere bu am barke yàlla subhaanahu leeral ci jubluwaay yi tax mu wàccee alquran nee na li yaddabbaru ayaatihi ngir ñuy settantal aaye alquran yi lam boobu laamu taalil la muy cause yi tax yàlla wàccee alquran bokk na si nit toog di gëstu di jéem a settantal aaya bu nekk lan la ci yàlla di wax su nekkee ndigal mu natt ci boppam ndax jëfe na ko ndax ni ko yàlla subhanahu wa taala santaane mu ngi jéem loolu na sant yàlla ñaan yàlla mu dolli ko su fekkee terale it ndax bàyyi na ko su ko bàyyee na sant yàlla su fekkee bàyyul mu jéem ñaan yàlla ngir mu bàyyi tere yi ko yàlla di tere loolu nag settantal alquran am na ay anam yu bare bari waaye dañuy jël grande ligne ci tomb bi ngir ñëw ci xolu waxtaan bi dëgg-dëgg bokk na ci yooyu it mboolem yi ñu war a gëm nga gëm ko bokk na ci yooyu it mooy dox liy benn la jullit yi yooyu yëpp ay ndigal yu bare bari ñoo ñëw ci alquran yàlla di ko jëmmale ci yow jullit bi waaye am na ay tere yu bari yu la yàlla subhanahu wa taala tere ci alquran yooyu yëpp it war nga ko sori war nga ko moytu war nga fexe it ba keneen du ko jege keneen du ko def loolu mu nekk ay kàddu nekk aussi ay jëf kon jëfe alquran loolu it dala war yooyu it dafa bari ay xeet yi alquran ñëw digal la ngir nga jëfee ko beneen bi it bokk na si yooyu xaqu taxaakumu ilayhi mooy àq attewoo alquran loolu it jullit bu nekk la war nga nosee sa dund ni ko alquran tëralee ak njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag day dem ci en tant yow jullit en tant que sa famille en tant que ñi ngay dundal ngay jéem góor góorgóorlu ci téere yàlla bi loolu moo tax sànq doon naa leen wax bi ma demee Madina nekk foofu juróom-benn at ak bi ma demee Màkk it visite boobu ma defoon ak aussi même Riyad bi ma demee 2011 2012 def fa at si expérience bi ñu am si ñooñu ni ñu fonke woon alxuraan naka noonu bi ma ñëwee fii doon jàngale kokki ñaari at ak yu teg beneen bi yàlla def na at bu nekk. dinaa tukki dëkk bële di ndar dafa naa mooy cosaanu xale bi ba 22 avril bii rek laa mujjee ndar at bu nekk yàlla dogal na damay dem ci seen université boobu defal leen waxtaan wala séminaire yi ñu fay organise lu gën a bari dem ci bokk yàlla def na su ma demee bokk na ci may njëkk a séentu seetlu ndar moy ñu fonk alquran la lu muy guddi guddi guddi soy doxantu si mbedd yi di nga gis xalé yo xamne ñu ngi yore ay jukk di jang alquran lolu ay waxtu yu bari si at yi ma dem seetlu lu jitu ñaari at amna si boo xam ne benn tombeel boobu guddi na lool oto bi ñu yóbbu mu paan moo ñëwoon di ñu jàppale ay booru minuit góor gi mu ngi yore benn téere bu tudd al axdar muy téere bu mag bu yàgg boo xam ne ki ko taalif bu ngi ko taalif depuis dixième siècle ci gàddaay bi moy Abdurrahman al asghar juddo 1514 Fatu 1575 dundam yeb mu ngi nek juróom ben fukki at ak ben bind ay téré yu bari borom lakhdari bind na téré yu bari nekkoon algérien bu bari xam-xam yàlla na ko yàlla yërëm téeram boobu muqaddima bi muy mbëmbëstalu laxdar yi loolu jullit bu nekk war na ko jàng war na ko jàngal lii di njabootam nga xam ne mbëmbëstal bi ëmb na ñeent fukki mbir yoo xam ne mu mukallaf bu nekk war na ci taxaw fukki ndigal ak ñett yoo xam ne ay warugar la mu kallaf bu nekk war ko jëfee mu am ñaar fukki mbir ak juróom-ñaar yoo xam ne dafa aram si mu kallaf mu def ko borom téere boobu mu ngi ko résumé si muqaddima bi góor googu ma ngi ko fekk ay xale wër ko di jàng alquran ñenn yi sax ñoom nee nañ gàmbi lañ jóge ak yeneen dëkk yi jege réew mi mais góor gi muy daloo laxdar yi ma fekk muy ijib awwalu maa yajibu alal mukallafi tasxiixu imaani yi te moom mu ne jël na retraite léegi dañ ko jël foofu muy garde guddi bi xale yooyu ñoo koy jàngal lii di laxdar yi loolu wax dégg yàlla marqué woon na ma lu rëy a rëy ba dama mujjul jël numéro ba tey maa ngi gàdde numéro góor boobu suba teel bi ma jullee fajar ma jaar ci wetu korniis bi gis xale yu bare bare bare ñu ngi yore alquran ma laaj benn waay ma ne est ndar ni yëpp la mel mu ne ma yow sa dugal ci biir dëkk mu ne ma waroon nga xam daara yi fi nekk ci laa xam ne ma ne alquran lu ñu fonk la suñu réew senegal loolu moo tax jullit bu nekk war nga gis sa bopp si alquran balaa nga koy gën xam yàlla bu la mayoon nga doxantu koo kooki wax dëgg yàlla di nga xeeb sa bopp si ñi jàngee alquran foofu surtout jamono bi nga xam ne moom mooy kooki xam naa ñoom Oustaz euh, Mor Thiam ñoom <laughs> ñoom ñi fa jaar maanaam mbir yi soppeeku na bu baax a baax a baax mais kooki jaar-jaar bu mag a mag la si réew mi kon mboolem ñi doon jàngale loolu alquran yàlla na yàlla fay ngir ne loolu ixlaas bu bu wër moom moo laloon loolu su fekkul woon yàlla kese kese moo woon moo lal woon loolu daar yooyu fay nañ bu yàgg-yàgg jaar nañ si bunt yu ne soo demee di jàngat daara yooyu fi ñuy jaar di nga xam ne alquran waaye jullit yi yàgg nañ di si sonn si réew mi ba yàlla sedd si yenn xale yoo xam ne mokkal nañ tey ay ay ay maanaam sar yu bare bare si alquran ñii mokkal alquran bi mu nekk seen dënn mbokk yi bokk na si àq alquran mooy xaqu taadimi wal ijlaal alquran yow jullit bi ameel nga ko àq màggal ko ak sellal ko ngir ne téere bu sell la téere bu màgg la téere boo xam ne dafa ëmb waxu yàlla subhaanahu te yàlla ni mu waxee sa alxuraan wax na ak mbindee famille yëpp wax nag jinne yi wax nag malaaka yi wax nag doomu aadama yi wax nag sa mbindeef yoo xam ne ñun doomu aadama yi xamuñu leen kon téere boobu téere bu màgg la boo xam ne war nga ko màggal màggal alxuraan nag am na ay façon mooy nga koy déglu suñ koy jàng bokk na si it màggal kaddu yi nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala di wax mu nekk lu rëy si yow di def jeexit si yow waaye di la jàjj waaye di la defloo waaye di la bàyyiloo loolu yëpp si màggal alquran si sa xol la wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa alqulub yonent bi alayhi salaatu wasalaam dina wax yow sama borom samaw nit ñoom de dañoo gàddaayoon alquran lool nag borom xamam yi wax nañ ci lu bare bari si lan mooy gàddaay alquran day am ba gàddaay jàng ko ak gàddaay di ko déglu di xarewlu gàddaay aussi jéem a comprendre tadabbur li nekk ci alquran gàddaay aussi di ko fajwee comme ni ko ibnul qayim rahimahullah waxee ci wa ne gàddaay alquran ay façon la lim si ci ibnu kasir aussi bi muy faram aaya boobu wax na ko borom adwaul bayaan muy cheikh amin al shinqiti rahimahullah moom it nee na bokk na ci plainte yi gën a tiit lu ëllëg yowmal qiyaama yi alquran di jëmale si ñu ko gàddaay loolu comme du thème bi waaye junj la boo xam ne jullit bu nekk war na xool ndax moom mu ngi déglu alquran ndax ñu koy sarax mu ngi leen di déglu est-ce que mu ngi jàng alquran est que mu ngi jëfee alquran est-ce que mu ngi sori li alquran di tere boobaa loolu yëpp bu nekkee si moom na sant yàlla ñaan yàlla mu saxal ko ci loolu su fekkee loolu amul nag na dabaatal moo am relation ak alxuraan mbokk yi tomb bu mujj <coughs> moom it comme ni ma def rekk après dinaa fi bàyyi foo yi dam koy tënk mooy ngéneelu jàng alxuraan ak jàngale ko si alxuraan wala sunna mbokk yi ngeneelu alquran ak wattu alquran ak jàngale ko ay yax yu bari texte yu bari ñëw na si alquran sunna di firndeel loolu fekk yaa ngi jàpp si alquran mooy si alquran yàlla du sànk sa waxtu yooyu du sànk mboolem li nga doon yëngatu kon yàlla nañ yàlla sàmm sàmmal ñu képp koo xam ne ngi jàpp si téeram kon loolu moo tax yonent bi bi mu waxee kàddu boobu saxaaba yi laaj ko ne ko wa man hum ya rasulallah ñooñu ngay wax ne ñooy xejje yàlla ñooy ñooy ñan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ahlul qur'ani hum ahlullahi wa xaasatuhu nee na ñi jàng al qur'an ñooñu ñoom ñooy xeje yàlla ñooñu la yàlla subhanahu wa taala boppam jagle boobu nag dinañ indi teraanga yi yàlla dencal ñi woto alquran ëllëg yowm alqiyaama ak bàyyi xel bi yonent bi salaa bàyyiloo xel ki jàng alquran loolu it ku yàgg toog ak mag yu bari ci réew mi di leen laaj réew mi nu ñu fonkee woon ku wattu alxuraan daan nga dégg sa ñu ne nit wattu na alxuraan fii ci réew mi ñu may ko soxna loolu ñu bare bari nettali nañ loolu nit dem na màkk jamono bu yàgg bi ñi maanaam bi dem màkk jafe soo ñibbisee boo amul soxna ñu may la soxna loolu di wane diine bi nekk si réew mi ak ni ñu fonkee lu aju si wàll diine donte nag àdduna mu ngi dox ñu bare bari ñu ngi bëgg a soofantal yooyu wala di ko ginnaawal waaye loolu ku fonkoon ku jàngoon alxuraan ba maîtriser ko wala sa nga wàcc alxuraan yow moo xaloo ko mais da ko wàcc rek dañ la doon fonk fonk bu rëy rëy ah si bi may gëstu lii bo jangé sahaba yi wala ñu bari si mag yu ñëk yi suñu demone boy khatma alquran ni mu don ni mu don dajalé njabotam ku melni anas ibn malik radiyallahu anhu dan na dem sa ba ci gatt ngir rek magal alquran ba ñu bare bari dañ ci don dajale ñu bari ay buur yo xamné dañ don dajale ay nit di def jongante ku gën a maîtriser alquran ñu neexal la fonk la ñépp di la sargal ngir teraanga yi lay jox yooyu bokk la gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax te dinaa ko cité ci kanam ñooñu yowmal qiyaama dañuy jël tengaade muy mbaxana teraanga yu bàyyi ko aljanna lañ leen di solal keroog yowmal qiyaama mbokk yi loolu lu rëy a rëy la yemul foofu dinañ leen solal yére yoo xam ne yére teraanga la yowmal qiyaama abu hurayra moo nettali nee na yowmal qiyaama yonent salaa sallam nee na yajiu alquranu yowmal qiyaama fa yaqul ya rabbi xallihi فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له قرع وارقى وتزاد بكل آية حسنة رواه الترمذي وحسنه الألباني yonent bi salaa sallam nee na yowmal qiyaama dina indi alquran alquran ne yow sama borom maa lay ñaan nga solal waa ji doon jàng alquran mooy nga wodd ko xam nga fii si àdduna ki mokkal alquran léeg-léeg day gis ay waajuram jëndal ko yére bu mu sol bis bi muy tari alquran ngir teralee ko loolu wala sëriñam defal ko ko wala ku baax defal ko loolu mais keroog yowmal qiyaama yàlla moom moo lay solal yow mi nga xam ne yaa moqal alquran nee na fa yulbasu taajal karaama waajo ñu solal ko mbaxanda tengaade teranga alquran ne yàlla maa ngi lay ñaan nga dollil waa ji yàlla subhaanahu wa jël xulla xul la sibaatu arab mooy yére boo xam ne dafa am mbubu am tubéy mu ne yàlla maa ngi lay ñaan waaj it nga solal ko yére boo xam ne yére teraanga la yàlla subhaanahu wa jël boo yére boobu solal la ko alxuraan ne yàlla maa ngi lay nga gërëm waaj yi nga am ridwaanullah te yàlla nee na wa ridwaanullahi akbar ngërëm bi yàlla di gërëm jaamam ëllëg yowmal qiyaama loolu moo gën dugg aljanna yàlla gërëm ki jàng alquran mokkal alquran yàlla nañ ko yàlla defal mu ne yàlla gërëm la wax la sa nga jàng di yéeg nee na aaya bu nekk ñu dollil la si yiw bindal la ko bu si mujj ah ki jàng alquran aaya bu mu jàng ci alquran lettre bu nekk dañ ko ci bindal yiw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waxuma alif laam mim nee na alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun nee na soo waxee alif laam mim ñu bindal la fanweeri tiyaaba tiyaaba yooyu nag yàlla moo xam nu muy toll xoolal lettre boo jàng si alxuraan ñu bindal la si yiw yiw bu nekk dañ koy ful fukki yiw nee na waxuma alif lam mim nee na alif yiw la maanaam lettre la lam lettre la mim aussi lettre la kon ku wa bismillahi rrahmani ñaata yiw ngay am ñaari téeméer soo jàngee fatiha ba mu jeex ñaata ngay am yàlla moo xam suratul baqara ñaata ngay am yàlla moo xam alquran ba mu jeex ñaata yàlla moo xam loolu moo tax kii jàng alquran moom si boppam xamul sa li ko yàlla dencal loolu moo tax euh, عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا لو أن قلوبنا طهرت لما شبعنا من كلام ربنا نينا سنو خلي سلابون سوسيتون سوسلون دونيو دويال مك سي kàddu سنو borom سي جانو كن بقي مانجي يمل في ngi بي di ñaanal oustaz Lom moom mi nga ak équipe bi jàppalante ak moom ñoom ñi sabab lu bis bi di ñaanal xale yi mokkal alquran yal na yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot di ñaanal seen parent di ñaanal mboolem ñu ñëw fii yal na leen yàlla bindal tiyaaba yal yalla yàlla barkeel waxtu yi di ñaanal Oustaz euh, Guèye moom it mu nekk suñu wëllëra bu yàgg boo xam ne wax dëgg yàlla si lii la ñu te it yii la yal nañu ko yàlla fayal yokk fanam samu ko sàmm njabotam sàmm suñu njabot yal na yàlla suñu njabot ñu ñëpp yàlla yàlla boole si teraanga yi muy teral ay jaamum ëllëg yowm alqiyaama hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم